والقلم وما يسطرون الله الرحمن الرحيم wa rahmatullah mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaara kii di wax yéen seen mbokkum taalibe ñu koy wax Modou Wade Diagne eh, dëkk Touba Médiana jàng daara ju wax Touba Xelkom ca Umul asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Serigne Khadim Diop jànge daare Serigne Sonia bu Gueye Touba Oumoul Khoura Jannatul Firdawsi bismillah maa ngi tudd Ahmadou Mbacke yu njaay ñu gën maa xam ci Khadim Ndiaye bàyyi ko région de Kaolack département Guinguinéo maa ngi jàng alxuraan daara sëriñ Abou mu sëriñ Saliou maa ngi bàyyi ko nii nag sama daara yi bàyyi sëriñ Afia Ndiaye wal qalami wa ma maa ngi ziar bu baax maa ngi tudd Seydina Gueye dëkk Touba Madiana jàngee daay sëñ Jiri Mbacke Abdou Lahad salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi tudd Baye Serigne Fall dëkk Touba Darou Khoudoss jàngee daaray Serigne Amin Gueye bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Mouhamed Salaan di jàngee daara Taysiru Asir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi tudd Cheikh Fall jàngee daara Fathul Mannan asalaamaaleykum mbokki julli ni mbokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp man la Xaadim Samb di jàngee daare Fatahul Mannaan asalaamaaleykum wa nuyu mbokki taalibe mbokki julli yëpp di leen ziar bu baax man la Moustapha Guèye daare Sëñ Mamoun Fall الله الرحمن الرحيم bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaar maa ngi tudd Mouhamadou Diané jàngee daare Longoor Mbay daare Sëriñ Bolle Mbay salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen siyaar bu baax man la Mourou Diagne di jàngee di jàngee daare son yi bu géey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi tudd Baye Galas Ndiaye. nekk daaray Afe Naylul Maram. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi maa ngi tudd Baye Serigne Mbacke di jànge daaray Serigne Abibou. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibi ñun ñu tudd Sëriñ Daara Njaay yor daara Touba Daarul Xuddoos daara ju tudd Fatxul Mannaan asalaamaaleykum ngi tudd Cheikh di jàng jànge daaray Serigne Abdoul Ahad Guèye asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Soxna Diop dëkk Touba jàkk Sëñ Mbay Njaay maa ngi jàngee daaray Sëriñ Mbàkke Lo wal qalami wa maa yasturuun asalaamaaleykum ngi tudd Soxna Binta Diop jànge daara Serigne Mamour Diop Mbacke xewa salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd soxna Ami Cheikh Mbaye dëkk Longon jàngee daara yi euh, maa ngi tudd Mbayang Fall di jàngee Jaalibatul Buruud salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd sono Maam Binta Sey di jàngee daara Sëñ Habibu Mbàkke anta bi ni'mati rabbika bi majnun